Ablaye Diop secrétaire général bu daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaay Touba. li ngeen gis ci jumaay Touba tey benn la ci activité daayira Muxaddamatul Xidma ndax daayira bi depuis 1994 mi ngi existé fii ci jumaa ji organisé lépp lépp lu aju ci jumaa ji yor gestion beeg nettoiement beeg entretien beeg lépp ak sécuriser li war jumaa ji donc euh, lii nag euh, ñu ngi ko tàmbali ci atum 2005. ci jumaa ji ànd koog ay kilifa diine ak ay opérateur économique yu nekk ci dëkk bi liñ ci jublu nag du lenn lu dul dimbali néew ji doole yi rawatina ñi nga xam ne waxtu dog la leen di fekk ci jumaa ji ak li ko wër ba bu ñu fi ñëwee mën a dog seen koor te du ñu am benn jafe-jafe ndax ku nekk xam na euh, Touba du tàggalikoog mbooloo benn yoon rawatina ci weeru koor ziar yi day bari jumaa ji képp ku ñëw da nga ñëw ci jumaa ji te xam nañ ni itam Touba population bi fi nekk bari na bari boo xam ne euh, bu waxtu dog jotee jóge ci marché Ocass di ñibbi ñenn ñi jóge ci li wër euh, dëkk bi ñenn ñi ñëw fii ci njàng mi nga xam ne mooy xew ci kër sëriñ bi kon waxtu woowu bu waxtu dog jotee ñu war a jaar ci jumaa ji euh, war nañu fee mën a jaar dog seen koor euh, ba jàll te du ñu am benn jafe-jafe loolu mooy li nga xamante ni moo waral ñu ñu amal activité yi nga xam ne moo nekk ci koor gi loolu nag dañ ko boole ak ay jotaay xam-xam muy ay waxtaani diine ay conférence trente conférence yoo xamante ni chaque jour danañ amal benn yoo xam ne ci li xew ci jamono fi jamono toll yenn itam day wax ci fiq ci xam-xam ci ay njàngale lu mel ne bi euh, ngeen dajeel tey li nga xam ne mooy wax ci euh, wàññi ci julli ak yokku ci julli ak ni ko jullit bi defee loolu tam lu la ak yeneen jotaay yoo xamante ne ay fatwa ay laaj ci yoo xam ne euh, mbokk taalibe mbokk ji dañ ko mën a jëriñoo ak yokkute am na ci ndax ci 2005 bi ñu koy tàmbali ñi fi li fi daan nekk ci mbooloo daawul ma sax lu ma 200 personnes bon donc nga xam ne budget année ba yëpp watul woon 1 million 900 et quelques mille la woon taaw euh, suñu budget àgg na ci soixante dix millions parce que li fi fréquenté li fi dogee euh, par jour mat na cinq mille personnes ni ngeen ko gisee ni image yi fii ci wet gi féetee Kër Sëñ ci yokk bi euh, Kër Sëñ noonu la war a jumaa ji ba wet gi féetee Kër Sëñ Saliou kon loolu xam nañ ne mbooloo mu baree baree baree ndax consommation yi liñ fiy jënd ci liñ fiy consommé ci mburu par par bis mat na deux mille cinq cent baguettes bon bu dee suukar lu mat six sacs la ñuy utiliser par loolu boo ko waxee rek da nga xam ne mbooloo mu bari moo ko moo ko mën a jëfandikoo kon donc lu mat 5000 personnes ñoom ñoo koy jëfandikoo nga xam ne kon daaw bu ñu ci defee 70 millions ren itam euh, yaakaar nañ ne danañ àgg millions loolu lépp nag mu ngi jóge ci poosu taalibe yi rek social la boo xamante ni poste talibé rek diine yi tàmbalee ko Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér moom moo ci jëkk dugal ab barkeelam mboolem njabootu Serigne Touba gi commerçant yi opérateur économique yi diaspora bi cellule yi Moukhaddamatoul Khidma yi nga xamante ñoo nekk ci biir Sénégal ak yi nekk bitim réew ñoom ñëpp kenn desul loolu la jël def ko ci liggéeyu koor bi nga xam ne daanaka commission yi ko seq bu ñu xoolee lu commission yooyu ñooy liggéey ci euh, corps bi 550 personnes yoo xam ne ay soxna ak ay góor ñoom ñoo fi nekk di di di euh, assurer li nga xam ne mooy organisation bi ba ci sécurité bi ba ci naafile façon bi ñu koy defee xam ngeen mbirum sécurité dafa sensible sensible goo xam ne tax na bi koor gi jub si saisir nañ préfet ci lépp loo xamante ni laaj na service étatique mu mu mu euh, appuyer ñu ci ci wàllu sécurité ci wàllu approvisionnement d'eau lu mel ne sapeur pompier lu mel ne santé waa Croix-Rouge ñu ngi fi kon dafa mel ne sécurité bi dañ koy ànd ak police nga xam ne ñoom ñoom lañ dénk sécurité bi mais teewul waa daara Moukhaddamatoul Khidma ci ni ñu tàmmee euh, masla ak jullit ñeeg talibé yi danañ mën a taxaw ci porte yi ku nekk ñu wax la fi ngay mën a jaar ba dugg ci barab yi ñuy ndogoo organise waxtaan ba fa ñuy waxtaanee mbooloo ma fay nekk ba bu ñu noppee danañ dugg te benn bousculade du am benn buuxante du am soxna itam fa ñuy nekk ñu yóbbu leen fa noonu la ñuy assurer sécurité bi ci ci ci ci mboolem point sàppe yi moom ni nga ko gisee nii rek dafay mel ne fu ñu toog di julli noonu lañ ko defee du itam du ñu bàyyi itam ba nit ñi toog ñu ñëw di leen jox ñam mais dañuy teg lépp ba nga xam ne ku nekk fi nga toog lépp fi la lay fekk ni ngeen ko gisee ci image daal di jël sa tàndarma xelli sa café wala sa sa bisaab sa dinjeer jël li nga war a jëfandikoo lépp nga jëfandikoo suñu paree itam ñu ramassé waat bagage yëpp delloowaat nettoyé waat fépp ba mu ba mu set loolu itam noonu rek la ñuy noonu rek la ko gisee nag noonu lañ koy organiser bu defee tam am na ay innovation yu ci am itam ndax euh, li ñuy consommé ci ay mburoog yu mel noonu bari na ak yenn xeeti gato yeeg yooyu tax na ñu amaloon benn boulangerie boo xam ne fii lañ ko installé ci biir jumaa ji ngir mu mën a jàppale euh, euh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu boobu ci ci ci wàllu defarum mburoog ay gâteau ay lu mel ne ay pizza yu mel noonu nga xam ne dañ koy yokk ci ndog yi ngir mu gën koo taaral gën koo muriteel message bi ma ciy lancé mooy daayira Muxaddamatul Xidma fi muy liggéey ci jumaa ji day lépp lépp ñëpp du lenn kenn moo tax lu ñu fi def rek dañ koy bëgg a bokk ak mbokki taalibe yëpp ba tax na ni ma ko waxee mbokki taalibe yëpp ñi ngi ciy jàpp waaye ñu ngi leen di gën a lancé appel ñu gën cee jàpp bu baax a baax a baax ndax liggéey la bu am solo boo xam ne defe lu baax baaxe na fu ne waaye jàpp nañ ne defe ko fii ci Touba defe ko itam ci barab bi la gën a baaxee kon ñi ngi ciy tàllal loxo mbooleem mbokki taalibe yi moo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñu gën cee mën a dugal seen ndax jëf ju baax la joo xam ne fi ñu koy def bu baax la te ñu ngi koy def itam ñu ñu koy defal itam yow waaw gan ñi fi faral di gis weesuwu lu dul euh, Cheikh Mamadou Mountakha léeg-léegi su amee ay gan ñoo xam ne dañoo jógee bitim réew ñëw dana leen won lii ndax lii kat sag la boo xamante ni Makka ma Madina lañ ko daan gisee kon nag bu buñ ko gisee Touba jar na ñoom ñu won won leen ko bañ xam ne ñun euh, des ñu ginnaaw ci ci ci liggéeyal yàlla euh, bu ko defee itam mbooloo yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tam daayira ñu seq ak ñoom jàmm daa muxaddamatul xidma seq ñoom ay relation ñoom itam chaque jour dañ leen invité ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba ci administration bi nga xamante ñoo nekk ci département de Mbacké ñoom itam ñëpp dañ leen di invité ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ñu wan leen ko xam leen daal fii dañ fee nekk di organiser waaye fi ñu nekk ñu nag ñëpp ñoo ko bokk ñu nag ñëpp ñoo ci war a bokk taxawaay naafila gi ci jumaa ji la xewee te jumaay Touba lépp lu fi xew muxaddamatul xidma moo ko war a organiser organiser ndogo yi di ko organiser julli ajuma yi noonu la ñuy organiser naafile yi suñu paree ci ndogo yi nii ba nettoyé fépp ranger bagage yi am na yeneen commission yoo xam ne ñoom ñooy ñëw dugg ci biir jumaa ji xool xàjjale góor ñi jigéen ñi teg barrières yi ba naafile gi mën a euh, àgg euh, ba imam bi dem ñu doog a delluwaat seen i kër nga xam ne ñoom ay 23 heures et quelques léeg-léeg 0 sax dana fekk ñu yaa xayra dayfin ataa bil bishri ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi